ñu daal di continuer moo di su fekkee ni Ousmane Sonko bi daal di nay noppi eh, ñu dem ca parcelle leeral na fa ni Amadou Ba mësu leen a jàngal dara jàngalu leen tous waa eh, Union européenne bu ngeen seetloo mercredi Modou ak ma jigéen ak yaa ñëw nañ ci ci li ñu wax ni dañoo annuler eh, seen contrat wala dañ koo dakkal dafa mel ni président Diomaye ci boppam moo dakkal bosam ndax dafa gis ni Sénégal gañëwu ci dara ñu dàkkal ko ba keroog ñuy waxtaanaat xool fan nañ ko jëmee ñu déglu Ousmane la mu ca wax ñu dellu si yéen ñëpp xam ngeen ni amoon nañu problème ci suñu géej ba nappkat yi daanañu am ak jën finalement dis dernières années yi ngay gis pêcheur bu jël gaalam yëpp ci ay nit ne maa ngi dem immigration clandestine lu ko waral mooy géej gi jaay nañ ko waaye barki démb dégg ngeen tubaab yi union européenne ñu gaawantu ne ñoom duñu renouveler accord de pêche bi waaye il faut ça pour ne pas perdre la face ñun ñoo leen ne accord de pêche bi novembre lay jeex te mënuñu ko renouveler ci condition yii mu nekkee parce que du suñu intérêt réew loolu mooy dëgg bi bañ leen ko waxee la ñu gaawantu notifié ñu ne ñu d'ailleurs jën gi jóge Sénégal dem Europe am na problème parce que respecté wuñu les normes xam nga tubaab moo tax dañ leen soxla yéen le peuple sénégalais parce que combat bi ñu war a mëne du combat bu ndaw ñi ñu nootoon toog suñu bakkan suñu économie ñu téye ko suñu alal ñu jël ko tey ñoom jàpp nañ ni ñun seen noon la ñu jàpp nañ ni président Bassirou Diomaye seen noon la jàpp nañ ni man seen noon la parce que ñoom jàpp nañ ni africain warul libéré wu dafa war a nekk toujours su nekkul ci colonisation mu nekk ci néocolonisation waa jooju dama bëgg sénégal yi xam ni man dama ko xam xamante wuñu xamante wuñu ak moom xamante naka lañ koy sax dama ko xam comme ni ma xamee sama loxo bi dama bokk ak moom liggéey pendant des années nee na moom moo ma doon jàngal ENA ne ma leen dara lu gàtt gis nga bi ñu yoree la jàngaluñu fa dara daan na toog deux mois di ñëw jàngale si mus naa toog ñaari weer parce que dama koy leeral parce que day ngand ngand naan non sama élève la woon moom daf maa jiitu administration loolu rek la. jiitu administration ma ñëw fekk ko muy joxe cours bu ñuy wax comptabilité 2000 année 2000 ñu toog ñaari weer ak lu tegu gisul jëmbu Amadou Ba chaque jour cours bi bu jotee lu may wax nii samay promotionnaire a ngi fii ñoom Adi Gueye ak ñoom Ousmane Diouf mun nañ ko seet bu kuuram jotee ñu génn toog di ko xaar du ñëw ñu toog ñaari weer ak genn wàll mu doog a ñëw bu mu ñëwee ci classe bi. ma ne ko mu ñëw rek dugg boo commencé cours ma ne ko monsieur Ba mu ne ma naam boobu élève laa woon ma ne ko vous nous devez des explications munoo yor cours bu mel ni comptabilité nga xam ne pour un inspecteur des impôts c'est un cours essentiel nga absenté ñaari weer ak genn wàll ñëw bu nga ne da ngay def da ngay ñëw rek jàll xam ngeen lu ma tontu billaahi wallaahi li wax nii bu ñu dëgg yàlla ma yàlla amal ay seede ko noonu ñu gërëm ko moom Serigne Fallou Goumbala moo doon jël élément yooyu bu ngeen seetloo campagne ba mu dooree ba léegi moo ànd ak Abbas Fall ma jigéen Amadou Ba de moo ñu xabaar ni ñu parce que ñun xamuñu woon dañ daan wax ne Macky Sall du tudd Ousmane Sonko président Diomaye ndekkee ci suuf bu ñu masaan dem réunion Amadou Ba moo ñu joxoon xabaaru ni su demee su gars yi déconné moo naan ko sa gars yi na ñu ngi déconné de waxal sa booy lii ba am ñu koy jiñ sax naan ko moo leen doon financé ju ñu mel été yi am na ñuy wax ni moo leen jàngal nee musu leen a jàngal union européenne xabaar bi ñu joxe ndekkee yooyu ñoom président moo leen wax ne na dakk parce que li ñuy am bariwul te li leen jox dafa bari waaw waaw day euh, confirmer waat rek son yi bu que ni euh, tubaab yi nax gi ñu yàgg nax ama bu fekkee nag da nga dajeeg ñoo xamante ne ni ñoo la gën a muus ngay gaawantu di dem di euh, joxe sa xibaar ne que ni arrêté nga fekk yow président bi teeloon na la xamal ne la affaire yi même su fekkee day amaat sax il faut ñu xoolaat ko parce que bu ñu demee ba Mauritanie bii nga xamante ne ni ñoo di suñu ay dëkk yoo xam ne ñoo ñoo dendee mmh. ñoom ni ñuy joxee seen géej gi ak nga comparé ko ak Macky Sall ni mu doon liggéeyanteeg ñi nekkoon ci ci ci ci waax yi di napp suñu jën yi di ko yóbbu à l'étranger mm-hmm. nga xam ne ñun président bi fi nekkoon nawloo woon sax parce que euh, xayma bi ñu def ci ci ci alal. ñu mm-hmm. def ko par année. Euh, loolu boo ko comparé ak Mauritanie rek problème lay daal di jur. Mm-hmm. léegi nag li tax ñoom ñu gaawantu dem euh, joxe xibaar boobu te ñu wu te mu wóor leen su ñu ko joxee sax ñoom dinañu ñëwaat rectifier li ni mel. donc keroog maa ngi toog fii di ko wax ndeyaa ma ne ko gis nga dafa jot sax ñoom ñu ñu abal ñu. parce que mënuloo yow waaw ñi ñi ñi ñi ah. napp ci ci ci ci ah, mën nañ gagné cinq ans mën nañ nga amal non non wala ñu def ko de telle sorte que sax ñun ñi nga xam te ñoo nekk ci biir réew mi ñu ci gis suñu bopp looloo indi tey euh, nappkat yu bëri boo dee seet jaar nañ ci géej gi dem Espagne wutali ko parce que yow ku yor batom yor ay matériel yoo xamante ne nii daf lay leer ni boo sànnee mu sànni moom la muy jël ci ay ay ay tonnu jën yi ak yow boo ko comparé li ngay am dafay nekk loo xamante ne nii amaluñu benn njariñ non seulement boo demee ci marché yi jën amu fa mhm. c'est bien nag ñoom ñu leeral lii bi que euh, ki ñu fal euh, ministre de la pêche waxoon na ko ci début ba mhm. il faut ñu auditer ñi nekk ci biir géej gi di napp suñu ay jën parce que nee nañu sax am na ñoo xamante ni dañu nekk di napp te seeni këyit sax mhm. boo seetee ba ci biir normalul àndut ak norme Sénégal lépp nag lu ko waral mooy que ni dañu yoroon état bu nga xamante ne ni moom na tubaab bi kontaan rek mais waa réewam moom seen yoonam neewu ci moom bu tubaab bi kontaanee ñun ñu mer sax moom déranger wu ko. Hmm. kon nii ñu def nii lu baax la su ko defee sénégalais yi xamul woon gën a xamaan te aussi bu ñu koy euh, bu ñuy ñëwaat itam ñu teg ko ci table bi ba ñun suñu jëmee bopp ñu gën ci gis suñu bopp sax ko ñoom parce que li ñu am loolu la ñu am kon li tax ñuy daw di ñëw si fii xam nañ li nekk suñu waax yi. d'accord voilà allah kon mi ngi noonu noonu la rek na ku ci nekk gis sa bopp ndox nit ki mën naa am matériel mu war a amuloo mais nag ci biir napp geet mu am nga am du ci wàññi dara jërëjëf Diop laaji mhm. Amadou de waa ji nee na ko mosuñoo jàngal dara mhm. te xamaluñu dara mhm. leeral naat union européenne gi nga xam ne keroog bi ñuy déglu ma jigéen man xawoon na ma am jàqare ndax bu ñu ñëwee kat annulé nañ dama naan ah réew mi de kon baadu baadu mais ñoom leeral nañ ñi kat li tax ñoom ñoo ko annulé président annulé ko parce que Sénégal da cee gàññiwut lu bari waaw waaw tout d'abord di njëkkee xam nga Amadou kon na moom Amadou Ba xam naa ne lii quoi parce que day war na soo ko yàgg na maa sonal nag. da ko war a bàyyi rek de. Amadou Ba xam ne école ngeen tàmbalee. <laughs> ba. waaw école ngeen liggéey <laughs> ba nekk mu ne soo ah, ah, ko yàgg na maa sonal nag. na ko bàyyi rek. donc yii moo koy waral quoi maanaam. na ko bàyyi rek maanaam Amadou Ba Amadou Ba xam naa ni fa soog ko toppee yàgg na. <laughs> Eh, moom. jar jar naa tourné. Ah. jaar jaaru Sonko <laughs> que parce que ba jàng ba ba impôt. mooy loolu nga léeg jàngal nit sax. Mm-hmm. Eh, mu biir la di ki ngay jàngal. Mhm. Eh, moo la man nekkul ni dangay ngay jàngal nit ki rek yaa ko ëpp xam-xam. Mhm. déedéet. si eh, ñi nga fi dégg ñëpp ñu di leen lim histoire retenir seen nom. Mhm. amoon nañ ay professeur bu fekkee ne ba ci kilifa diine yi. amoon nañ ñu leen dalal baax. mais ana ña leen dalal baax. naa am nañu ay sët. kenn déggu am nañu ay jaboot am nañ lépp. mais anañu tey ñooñu temps de am na ñoo xamante ni bi ndongo yu jaar ci ñoom tey jii ba nëga ni ba ilaa yow mi dini seen tur du fay hmm. ndax lan li nga xamante ni bi moom lañu liggéey tey jii mën nga toog fi ñu ne la xam nga Einstein nga ne waa xam naa ko pourtant amoon na professeur hmm. na professeur am hmm. xamoo ko waaw doo ko dégg way laa dangay def gëstu pour jéem a xam ñan ñoo ko jàngal ñu ko doon jàngal bi ñu koy jàngal yëg nañ ñi kii moo leen ëpp xam-xam mhm. kon jàngal nit ki taxut nga gën koo xam si waaw parce que pare yenn saa ngay jàngal nit sax eh, par exemple ay prof yi dañuy jànkonteeg yooyu dañuy jàngal xale boo xam da leen di biir ne leen kii génie la mhm. si parce que par saa dañuy gis xale bi ni muy gisee yëf yi ak ni ko ñeneen ñi di gisee dañ ci yéemu. Mhm. donc loolu mooy li nga xamante ni bi moom lañ doon wax ci loolu ak jàngal nit ki moom taxul nga gën koo xam léegi bu ci. Euh, li nga xamante ni mooy xam nga tubaab yi. Mhm. loo leen mën a waxal. xam ni ay patriote lañ ngir seen réew. bëgg nañ seen réew bëgg nañ seen réew. Mhm. parce que boo seetee journaliste tubaab yi manipulation bi ñuy def noonu seen intérêt réew la. Mm. mais da ngay xool sunu journaliste yi. dañuy jël même li tubaab bi di wax moom la ñuy jàll lantinoor lañ ñoom au lieu ñu dem jege ji mhm. autorité yi ngir ñu wax leen waaye dañuy préférer la tubaab ba def moom ba defar information ba wax ni mu koy joxee àddina bi hmm. ñoom loolu la ñuy jëlaat jàllale ko waxee ko comme na nga xam ni noonu la ko tubaab ba waxee maanaam reprendre boo deful ndànk sax hmm. ñoom ñooy gën a garaare parce que dañ ciy boole waale iñaan pour boole ci ne man dafa am euh, kii da cee def benn kii ma ne lii de ñaw doo nga ci manqué lan ci euh, maanaam nga wax sa kii ba noppi ne ñaw. Ah, moo ci manqué dara looloo manqué ci wax ji. maanaam def benn reportage wane ni euh, FMI nee na day dakkal Union européenne nee na day kii kii nguur gi xam nga dakkal nañ yëf yi. ah kon ñaw dong ci manqué woon. ma ne ñaw dong de ci manqué. koo ñeme. waaw <laughs> parce <laughs> que reportage nag ñëw dire yi. maanaam bu ñu lajjee fii. Hmm. dañuy jël seen lajj au lieu ñu wax ne lajj la. mais dañ koy def avantage xam nga bu ñu waxee ne ñoom ñoo annulé lu mhm. bokk ak dañ leen a kii buñ mhm. joxee xibaar bi comme ni mu demee mhm. image bi muy reflété ci euh, ci biti du bokk comprendre nga maanaam tey mooy li may wax ma jigéen rek dàq naa tarixa mu ne ma maa bàyyi tarixa bi xam nga maa bàyyi. bokkul ak alaaji bokkul ak la bëgg a ne. dama la la bëgg a maa bàyyi. waaw dañ koo dàq. maanaam yow da nga ni ko génnal. waaw far sax bàyyi naa. waaw <laughs> non <laughs> bu dee far sax bàyyi naa day dugg bu boobaa. bu boobaa day dugg mais xam nga bu njëkkantee ne bàyyi naa. ñu ne ok. pourtant dàq amul gàcce de. waaw non waaw ñoom gàcce lay doon ci ñoom parce que dafa am yeneen yu ñu bëgg a. Mhm. fu ñu bëgg a dem. mais bu ñu amee ci seen Euh, kii ñu ne ah ñii de dañ leen a dàqee Sénégal du rafet ñun ñoo bàyyee Sénégal mhm. parce que àndatu ci kii ak yooyu moo gën a rafet ci ñoom mhm. pour bu ñu demaatee feneen di négocier comprendre nga mhm. pourtant ñu nangu baatu dañ ñoo dàqee Sénégal mais nag li problème bi mooy mm. ñaari façon journaliste yi mooy problème bi ñee dañuy ànd ak seen ñooñ mais ñun suñu ñooñ dañuy xeex. ñii dañoo bañ seen i seen i loolu mooy li nga xamante ni bi mooy. pourtant euh, li ma ci seetlu keroog bi ngeen di traité sujet yi commentaire yi damay xool mais lu bari damay gis ñu bind naan ñaw njoorawal jàmm dem leen ak jàmm. non mais mais. kon lu mel ñoom dañ ñoo xataloon. sooy la leen ma wax la leen c'est que xam nga non seulement dafa am lu am. ndiñ ko signé baaxut la dugg du dem ci réew mi yooyu yëpp mi ngi ci woon maanaam signé nañ ko signé nañ accord yoo xamante ni bi baaxut. Mhm. comprendre parce que dañ la jël comparé la ak euh, li nga xamante ne bi ñooy euh, Maroc Maroc li ñu contrat yañ fa loolu mhm. moment bi ñu lay wax fii ne la ñu ngi lay jox ay euh, trois millions trois millions d'euros ah fële Maroc ña ngay def prix de deux cent millions mhm. différence bu extraordinaire ba noppi la nga xam ne moom nga cay am muy miet du dugg fi mu war a dugg ba noppi mu tere say waa réew liggéey parce que nag kaay ma wax la leen de sooy ko mhm. surtout fois que ni affaire yi dakk na nii mhm. léegi nga gis sunu mbokk mool yi seen mbir yi tàmbalee dox waaw mhm. ah, te léegi nga gis tamit ceebu jën yi tàmbalee gën a neex ah, ah waaw jën yi jën bu wàccee kañ macha allah sooy bu yaboy mërëg yeeg yooyu gëñ nga ko gis alaaji yaboy mërëg xam nga boo ko kii xam nga tey <laughs> sooy bu ñu ngi nuyu jaañee ni eh, sooy bu xam nga faale ni ah jën yii <laughs> jën yi ay jën yi coof ak yooyoo. ceebu ginaar xew ak ceebu ginaar yi xam nga yi ay danger rek ceebu jën piir jën yu ñu napp nii jaar ah. ci géej gi yi nga xam ne bi boo ko daan lakk diw gi was was ay alaaji ah, non bu yawit wallaay wax yaa sa lakk oh, yooyu amatut ak supp jën amatut amatut ay <laughs> yéen a ngi doon def la waaj doon def nag ca TFM de trois cent quatre mille bi <laughs> saa yi yokk ah, ba yow ya booy dañ ko daan maye sooy bu. ma jigéen yow ñaata at nga am nee bu njëkk ba. non sooy bu li muy wax sax xam naa pepesu lay a wax wala waxoo pepesu. waaw neex na trop. yéen da ngeen ko daan def yéen seen jamono pepesu neex na waa pepesu waaw seen jamono suñuy dañ daan alaaj yàgg ma jigéen kon yéen a <laughs> ah, ma ko ma lii ma jigéen jóg ma sax <laughs> ah man de xaw ma lii ma jigéen mi mag la de non man kay ma jigéen yaa ngi feeñal sa bopp de. ndax feeñal yii moo lay feeñal. waaw des fois day jékki tàllal loxo da ngay jékki-jékki rek rëcc. ki <laughs> la koy rëccal ko <laughs> dafa mën a tooñ. Hmm. xam nga ab professeur. ak élève mu ñoo bokk. ci naka exemple bi muy joxee tout di wax ne euh, waa ji dafa toog deux mois ñëwul. Hmm. mu ñëw ci classe bi élève bi ne ko eh kaay balaa ngay eh, commencer cours il faut nga jox ñu. explication explication te loolu prof bi moo ko daan laaj élève bi. léegi prof bi kay ma yaakaar proviseur bi wala censeur bi lay jox euh, explication soo ko dee nee ko mën a mu bàyyi tooñ yi. ah Amadou daal bu dee wax ne li Zaa Ndiogou wax kon li nga wax ni ba léegi day duggaat ci biir sonal na ko. <laughs> sonal na ko bàyyi <laughs> na Amadou kañ dee na soo ko yàgg damaa sonal soo ko yàgg damaa sonal. <laughs> mooy café avec ba waa ji bande bi wër waa ji su ne ko yow lu tax foo toll di ma wër mu ne ko loo def ba ma lay wër <laughs> góor ak malaxis nee na di ma wër mu ko yow loo def ba ma lay wër mm. kon boog bu dee daa am ku yor yi fi moroomam na ko bàyyi mm-hmm. damaa yaakaar nag Amadou daa yor <laughs> lu soog di lijjanti waaw bu ko yoru na na ko bàyyi